waaw soo nee sax nga wax man nga kango wala wolof kango waaw ba tey yaa ngi wax ak Gambian Talents yow lan moo tax nga oo ñu a xam nga lu tax may oo leen ah dañ bëgg a change government bi ah baro moo fi nekk mm-hmm. te baro deful dara lu fi jaadu wala mm-hmm. muy cher lépp a boo demee si marché bi doo mën a am dara mm-hmm. so loolu moo tax ñu ñëw fii ñun Ousainou Darboe lañ bëgg mu toog moom bu toogee loolu yëpp am nañ ne kooku bu soobee yàlla yooyu yëpp dina dina dina ba lan lan moo la leer nag Ousseynou Dabo su toogee maalo dina wàññeeku yëpp dina wàññeeku. moom laa óolu loolu moo tax ma óolu loolu. est-ce nga ne Ousseynou Dabo dina win. waaw. lu tax nga dina win incha lu ah. ah, ko dama gëm suma bopp loolu moo tax naa ne bu soobee yàlla dina dina win. bu soobee yàlla dina win léegi yow tey Ousainou Darboe si wiinoon noon jii lan nga foog ne loolu la moo defar réew mi mun a defaraat réew hmm. non lu mun a defaraat réew moom bari na waa ca waxaat rek non jarul moo waa sax même su ma waxutee waaw mun na développe réew mi hmm. soo moom rek moo mun a développe réew mi Adama moom du dara adama baro iya, dudara de wa yen UDP en ko mo harak adama baro dudara adama baro do fel en amen adama en adama baro de adama wa UDP ah Ousmane Dabo lol mo ne wax adama baro ah. te lol du wax te lol du wax dede yow ya, no tuda man jali la tuda jali yow ya, te adama baro sulo sulo oya ton state house ba de ga adama baro même suma oya state house mo tegale 10 million sax buma ko tiyé ni suma loxo dina ko wone adam baro duma la carte so tegalé visa sa do dem way man journal europe ah waaw yëpp laa suur. Baro ak Alé nga suur. yëpp laa suur man bëgguma Baro ku bëgg a Baro sax bëgguma ko. ku bëgg a Baro bëggoo ko. déedéet ah? a Baro ah. baax na ba tey yéen a ngi gis fu ñu toog. Ah. ñu ñoom tam ñu si ñu si ñu bi right. waaw jërë